mardi 3 mai 2022 mbokk yi bisimila daleen ak jàmm seen revue d'actualité ci football lañ koy dooree ak sanction bi wàcc ci démb jógee foofu la mu nekkoon fii ci Ndakaaru ci jam ñaajo ginnaaw ba équipe nationale bu Égypte daal di ñàkkee woon boobu jongante ci diggante ak Sénégal dafa daal di déposé violence ak li nga xam ne nii moom mooy racisme ci loolu si la FIFA mi nga xam ne nii moom moo jiite bépp compétition ci wàllum football ci àddina bi wàccee ay sanction jëm jëmale ko ci ñaari équipe yooyulee bu ñu sukkandikoo ci FIFA jàppale na Sénégal dina daal di fay lu tolloog 112 millions ci suñu koppor waaye yebul foofu ndaxte Sénégal matcham bu njëkk ñeer éliminatoire coupe du monde daf ko daal di joué ci huis clos maanaam du am public Égypte itam ñam na ci sanction yi waaye ñoom lu jege 4 millions dong la ñuy daal di fay ñi doon xaar di daal di disqualifié Sénégal wala sax jongante retour bi ñu daal di koy amalaal jàppale loolu di firndeel na Sénégal dina daal di bokk ci ndaje coupe du monde bi ñu nar a amal ci weerum novembre foofule ca Qatar. ci loolu sax la ñuy desandi ak maître Augustin Senghor njiital football ci Sénégal mi daal di addu ci sanction boobule. ginnaaw ba équipe nationale bu Égypte daal di joxoñee baaraamu tuuma public bu Sénégal daal di wax itam li nga xam ne ni moom mooy jet de projectile addu ci banderole yi ñu jàppee racisme ak itam laser yi nga xam ne ni dañ doon viser joueurs égyptiens yi ñu ngi doon xaarandi ay amaan maître Augustin Senghor daal di xamle waaye nag bu ñu sukkandikoo ci njiitu fédération sénégalaise de football amaan yooyu de dafa daal di saf-sàpp ci côté Sénégal waaye nag duñu yem foofu ndaxte département juridique sénégalaise de football dina daal di xayma yooyu sanction xool itam nan la ñuy def ba déposer recours ngir FIFA fas yéene wàññi li nga xam ne ni moom mooy sanction wa mi mu nekk ay kàddu yu nga xam ne nii njiital fédération sénégalaise de football di maître Augustin Senghor moo ko daal di xamle ci football la vaccination bi nar a amal ca Maroc ñu jàpp ko le 2 mu fas yéene jeex le 30 juillet 2022 boobu la nga xam ne nii Sénégal dina ko daal di teewee ci groupe A bi koy bokk ak pays organisateur boobu la di Maroc Burkina Faso ak Ouganda Sénégal nag dina daal di jongante jongante bu njëkk le 3 juillet lay doon ñu fas yéene jàkkaarloo ak Ouganda jongante boobu la nga xam ne nii moom moo nar a quatorzième édition ci histoire Coupe d'Afrique des Nations jàkkaarloo ak Burkina Faso seen jongante bu mujj si phase de poule yooyu lee contre Maroc lay doon ñu daal di koy jàpp le 8 juillet jàppale na suñu gaynde yu jigéen yooyu lee bii moo nar a nekk seen ñaareelu participation ci phase finale Coupe d'Afrique des Nations bu mujj bi ñu ngi ko amaloon ci 2012 Sénégal nag dañ ko daal di éliminé woon ci phase de poule ñu jàll ca làmb ja dajee ko suñu revue d'actualité combat bi doon dox ci diggante boobule Bira Sène di njiital CNG moom moo daal di addu jëmale ko ci ñaari mbër yooyu le Bira Sène mi ngi xamal ne ginnaaw boobu ba léegi gisaguñu li nga xam ne ni moom mooy certificat de guérison bu jugee ca Modou Lo Ama Baldé moom bu ko neexee mu daal di engagé wu ak beneen promoteur ba pare amal làmbam ñu ngi ñaanal Modou Lo yàlla may ko tan Ama Baldé ca wet ba heure bu ko soobee mun na daal di bëree loolu la Bira Sène njiital CNG daal di xamle mu ngoog loolu moo doon tëj seen revue d'actualité de ce mardi ñu leen jaajëfaloo ci teewlu bi bi di leen jox di تقدر تقول لك ان شاء الله